Mali bu mu tëjee ba léegi am nañ jafe-jafe moom wax dëgg yàlla parce que nag yi moom pour mu ñëw day yéex te instant yi nag yi dañoo seer trop trop trop trop fere bi daa bëri daal instant yi fere bi dafa yokk parce que gars yi dañuy fay oto presse ñaari yoon fay fey ci montage yi pour nga dugal fii nag daal jafe na trop trop sonn nañ daal problème nag daal am nañ ci instant yi parce que biñ tëjee frontière bi ba léegi daal am nañ problème bi bu gars yi biñ tëjee bi ba léegi dañoo am problème mu nag. cent dépend rek nak am na ba sept cent mille six cent mille cinq cent mille quatre cent mille ça dépend ci qualité nag bi rek ça dépend ci qualité nag bi nga bëgg période bi moom mooy loolu période bi moom di buñ tëjee frontière ba léegi mom mooy loolu di nag yi nekkul di génn seer nañ trop trop sax instant yi moom liggéey bi instant yi mom mooy loolu instant yi moom di buñ tëjee frontière ba léegi mom ñun liggéey bi baaxul ci ñun hmm. instant yi sonnal nañ trop dañ tëj frontière bi daal sonal nañ trop. ah ñu tëjji frontière bi rek ñu tëjji frontière yi nag yi mën a ñëw normal comme ni mu doon ñëwee waaw mais instant bi moom période bi moom sûrement période koor bi moom ñun moom yokk guñ mais ñu ngi doon discuter pour mais yokk guñ moom kilo 3000 la ñuy jaayee ba léegi mais nag yi moom 3000 bi amul benn intérêt. ñu ngi discuter daal mais déggoo guñ nag waaw te am nga discuter bi tamit nag yi instant yi prix bi boo yokkee nag yi day gën a seer rek tax ñun même yokk bi arrangé wuñu waaw yokk bi arrangé nañu changement daal ñu mënoon def ba tëj frontière bi buñ ko defoon moo gën suñ place yi waaw yi moom fere bi mënul ñàkk mais ça dépend ci nag bi rek fere bi lu mu bëri bëri ci kaw nag bi rek nga koy teg nag bi prix bi bu yamee rek di nga mën a génn mais fii nag bi prix bi mu ngi yéeg ci kaw rek doo mën a génn parce que say fere yëpp ci nag bi nga koy sa fere yi ci nag bi nga koy aj doo ko aj waaw fere yi xam nga rek day am ñuy jaay da ngay fay abattoir fay juuti loolu lépp da nga koy fay waaw sa dund yow tamit sa dépense loolu lépp fere la sa dépense kër koor gi xam nga instant yi dépense yi day yokk loolu lépp dañ koy fere ah, dañuy jaay dañuy jaay bàyyi un million un million et quelque yàlla instant yi borom nag yi lañuy liggéey liggéeyal yi moom nag yi amuñ bénéfice instant yi moom fuñ toll nii instant yi depuis Mali bu tëjee ba léegi nag yi nekkuñ ñu génn sax lépp daal perte la ñuy liggéey instant yi nag yi seer nañ trop nag yi bu Mali bu tëjee ba léegi daal nekkuñ di gis suñu bopp ci nag yi depuis bu Mali bu tëjee ba léegi nag yi suñ chiffre affaire yéegul xanaa wàcc kay mais yéegul instant yi moom yokk-yokk yi bëri na trop. jafe-jafe bi mooy euh, euh, wàllum courant bi kese lu muy coupé mooy xaw a yàgg tuuti quoi mais ak clients yi tamit euh, des fois dañu am tolof tolof ak clients yi comme ça sa ñaaw bu tardé rek moom.

dañoo xaw a raar tuuti dañoo xaw a raar parce que par rapport à avant marché bi day fees ay nit euh, tu vois gars yu bëri dañuy ñawlu mais ren moom euh, bruit bi wàññeeku na tuuti quoi. mën na nekk koor gi parce que gars yi bu ñu waree nii duñu tal yeneen quoi duñu tal ay ñaw des fois li ñuy ñaw li moom mooy seen xale seen doom yi la ñuy ñawal quoi mais ñoom moom dañuy xaar ba tabaski incha allah. Euh, par rapport xaalis tamit dafa xaw manqué tuuti parce que boo proposé prix nii gars yi dañuy wax ni xaalis amul quoi. waaw client yi loolu la wax na na xaalis amul te ñu tamit mënuñu forcer yi nga xamante ne moom mënu ko day def moom lu mu mën rek après ñu nekk ci waaw